Amath Dansokho mooy ñëw pour tontu ndax président Ablaye Wade bi fi nekkoon lu mel ne xamee la yàq ki nga xam ne mooy Dansokho ak Moustapha Niasse ñoom nee na nañu dañuy tontu ndax comme que mag day xuloo mag mag a koy tontoo réew maa ngi neex xale yaa ngay xuloo mag yi di xuloo kon réew maa ngi jambaajoo lii nag mooy réew dëgg dafa war a tàng waaye réew bu lewet ne ne ne ne ne loolu baax na waaye du neex ñu seet <laughs> Dansokho xoto bool jërëjëf na ngeen def yéen a nga ci jàmm caméraman bi bu fekkee ne mu gis Donald Trump gis costume bu mu ne sañse rek lay def sañse rek lay def xam ngeen ku ma bi jóg Youssou Ndour la nekk mooy ngi toppatoo affaire yu oto yi la neexal dinaa ci ñëw ma ne Ablaye Wade fii la nekk démb yàq ñu lu mel ne xeme naan ay ñun euh, Macron bi muy am juróom bi soog a judd ñun ñu ngi liggéey yàlla baax ñett laa leen di wax tey loo leen xamul ci Ablaye yaay ñun maase wuñu ak moom Ablaye moo ñu ma Sénégal nañu ma jël témoin man Ablaye Wade moo ma jàngal ki la moo la mag penku laa jub penku laa jub ak fu penku munta ne mooy fii di fii di fii Ablaye Wade man jàngal na ma jàngal ku la mag moo la mun a jàngal est-ce que ngeen gis ñu ne am na liir buy jàngal ay mag Ablaay du xale tey du xale ëllëg ñaar ñoo koy firndeel ñu ngi wax ne jamonoy maam borom Touba Ablaay euh, nekkoon na di topp ci fas bi man wóoru ndax nit da ngay wax loo xam ne wóoru la wóor waaye maa ngi leen koy wax ci saraxule ndax ñun dañuy wax ci saraxule saraxule bu waatee ci lakkam mooy caaxaan draano ko uruwa dana diini dingini warafuro hingi hanga hururu buruju karandeke ablay mooy nettali waaye photo fekkewul waaye mun naa wane photo fekkee fekkee du wax mais mun na nettali wolof bi moo ñorul Ablaye Wade moo taxaw nii la joor ngoone Latir Diop taxaw nii Samori Touré taxaw ne Ablaye Wade yor mbege xale yi xamuñu mbege senkal yor mbege ne ci ginnaaw te boobu Ablaye Njagamaar mu ngi toll ci fukki at ñeent la joor ngi photo muy génne bopp bi dafa yàgg diingat nguur loxo bi mu ngi def soppi nii ci ginnaaw ne nii ak bi te archive yaa ngi Samori Touré ca Mali fotowu ak Ablaye Wade maa la wax li Sunjata Keita ak Ablaye Wade bii nag man fii laay daana la fii bi may wax nii dama koy wax ngeen tas géew da damay wax ne damay wax ne ku am yóbbante ñaan suñu borom mënoo ko gis demal nga jox ko Ablaye xam nga lu tax ma wax loolu Ablaay ak Firawna Firawna bi yaroon yoon ci yàlla Moussa ak Ablaay fotawu nañu seen morom mu bàyyi laa li ngeen koy oh, oh, noonu mooy da ngay li ngay wax lu leer mun naa jur seen bàyyi yéen a ngi may Firawna moo taxaw Ablaye taxaw Osmani Barak bu président Égypte moo ma wan foto yi ñoo tey ànd ak Macky moo ñu mag Ablaye mun Ablaye man may taawam nga naan la Karim Wade la njëkk a gis rek waaye Ablaye fekkoon ne Karim amoon na ko jamono bi ma juddo kon Karim mag lay doon Ablaye Wade mu am ay fanweeri téeméeri at yu tegal ñeenti téeméeri at yu tegal Ablaye du xale du xale tey du xale la national bi fii ma fekk man du ma mag man du ma mag man du ma mag waaye lu leer laa leen di wax am yóbbante ci yàlla jox ko Ablaye tey ànd ak Macky Sall maa tey xam nga lu tax ma tey parce que du ñu ay mag yu tax yoo yu ñu wax ay mag Ablaye Wade moo ma jàngal université Dakar lu leer laa wax morom c'est pare yàlla ngeen dee.